waaw xam nga rapport Cour des comptes bi xëy na ñëw na après presque deux ans après bi Covid tàmbali ak léegi. Mm-hmm. dama ni nag sénégalais yi peut-être lii mooy lu officiel li mais officieusement on le savait nous nous vraiment bi ñu gisee affaire nu mu doon tëddee ak séddale bi parce que bu fekkee dafa looy séddale nit yi yow ñan ngay séddale ñan ngay jox. on n'a pas identifié les gens yi nga xam ne ñu war nekk les bénéficiaires. c'était artisanal kay. waaw donc loolu noonu te évident man sincèrement man bëttu ma man je dis la vérité bëttu ma man xamoon naa ne lii ñu bind ko ñoom ñàkk ko bind lii luub na ba pare lii dëng na ba pare donc nag comme dem nañ ba tey corps yi nga xam ne état moo ko fi teg muy corps de contrôle moom mu ñëw fësal ko nekkat nii la demee léegi nag am na nga xam ne mooy moom it ci état la mooy la justice. tey justice boobu dañ koy woo moom ci boppam mu doxal yoon parce que nous lépp la nga xam ne justice la ñun du ñu bëgg mu jaar ci yoon dañ koy exiger ah, mais justice tam bu ko waxul dara du mën a doxal yoon moom it justice aussi ah, non non xam xam nga justice des fois tamit mën nañ ko mën nañ ko bañ a bañ mën nañ ko bañ a wax mu autosaisir mu autosaisir parce que tamit le procureur moom loolu la fay jariñ mm. taxawal état parce que moom état la taxawal taxawul gouvernement le procureur il est là pour si leta dafa am lu lu lu ko song lu koy jéem a nërmeel le procureur moom dafa am autonomie wu autosaisir wu mm. ne kat lii day gis naa ko wala boog lii bind nañ ko mm. au delà de ça corps de contrôle moo bind teg ci taabal bi dañ mm. wax procédure la déjà ci ministère rek nangam sangam looloo non non autre procureur mën na leen woo ne leen kaay leen preuve yaa ngi nii donc justifiez vous suñ ko mënee justifier xayrun suñ ko mënee justifier nag mu teg yoon teg justice parce que la justice comme ni nga ko waxee léegi rek la justice doit être indépendante. la la justice aussi doit être fort parce que justice bu buñ bu buñ cofee affaire yi. dafay permettre keneen mu def ko. donc il faut qu'on sanctionne ki nga xam ni def na erreur bi de telle sorte que moom keneen doot ko ñemeeti bu soobee yàlla. lan moo war a nekk taxawaayu président fi mu nekk nii. waaw président fi mu nekk nii moom euh, lii taxawaayam. mooy comme ni ñu ko tuddee moom c'est le la constitution. te quand on parle de gardien mooy ki nga xam ne da nga da ngay aar aar constitution bi aar justice bi donc nooy mën a aar justice bi mooy ko justice bi tegu ci yoon donc ñun foofu lañ ko fay xaare moom mu jël justice justice mu tegu ci yoon respecter justice bi. gaa yi faute nag. gaa yi faute. waaw non justice bu bu leen justice épinglé. charte bi seen kaw. bu leen waree tëj ñu tëj leen. loolu c'est obligation justice moom bu dee appliqué nañ ko ñooñu. lii yoon wax ci ñoom daal nañ ko ci def te ñu bañ ci am benn santiment de faiblesse ñu bañ ci am benn santiment de partisan aussi ñu jël ci respecté ko ki ci def erreur ñu arrêté la